bu jëkk bi mu ni leen wan leen ni leen virginité moyen la waaye de fin en soi ah diw de jigéen sàngam téye naa ak ndawam ba ñu may ko jëkkër jigéen bu ko def rek defe nga ni jeexal nga

di xaar jébbale ko mu nekk jànq mu pare tas kër jëkkëram yar gën a ko yar pour mu garder virginité bi ban fans la amati ndax dem na tas kër jëkkëram te dem ñu wet jëkkëram wet lu bokk ci moom ما غاية بي كون بو جيجين ورنا كو رتنير واي غوريت ورنا رتنيني الشهوة ليست إنما هي وسيلة وليست غاية ساتيسفير سا بوب رك اك سا باسيون تخلو نيو كاي ماي جيغين ndax ki nga àndal ba defe ne am nga satisfaction ba noppi ci ëllëg sa ko génnal kër gi moo xamal ni lale wasiila la woon waaye du gaaya ànd ak moom ba ni kontaan satisfaire na la le lendemain nga ni ko génnal kër gi

dafa am baat baat bi dafa yéeme tuuti te am solo pour jigéen mooy baatu dootuma sàmmi mbaam dootuma sàmmi mbaam ndax sama gëléem ko ku jigéen war na ko appliquer ci cadre dignité dootuma sàmmi mbaam nag ndax sama gëléem kooku jigéen war na ko appliquer ci cadre dignité waaye bu humilité ñëwee mu dàq ko ah. na am dignité gu day ni loo warul loo ëpp rek da fexe ñu xamni dépassé nga ko lo ëpp rek nga fexe ñu xamni dépassé nga ko waye do ko def atu ndax amna luy ñëwaat nak ci walu kersa laaj la nga dépassé nga déllu wacc ndax al nihaaya hiya al awdatu ila al bidaaya ah kenn du ma rey nangam rek ma dëkk ci xanaa nag déedéet parce que ces personnalités, cercles-là, trajectoires-là, jigéen personnalité trajectoire le dund muy commencé fii teeri fee mu mais trajectoire la fu mu wëree ba ñëw rek waraat moo tax man nga ni dootuma sàmbi mbaam ndax fi ndax dignité waaye bu humilité jotee nag bu ko laajee sàmmil mbaam maanaam duma bale kër gi dootuma bale kër gi ndax mbindaan maa ngi fi duma lal lal bi ndax maa ngi ak ay xale kooku d'accord ko dignité laajee def ko da am na fooy toll dafi ñëpp ne na fi ñëpp ne nga summee ko def ko